lan moo ci seen gis-gis ak seen taxawaay <coughs> loolu yëpp lañ nar waxtaanee donc sans plus dañuy njëkkee suñu première euh, vidéo daal di koy euh, visionné ndo ensemble xool ko suñu si noppee dellusiwaat ci euh, plateau bi. <coughs> ñoom def nañ annonce aan <coughs> moo amoon problème. voilà xam nga aan bokkul ak bel ba tey parce que bel am na centrale mm-hmm. mais dañuy problème bi déclenché aan. dafa affecté réseau interconnecté bu OMVS que ñoom def nañu seen kéem kàttan pour rétablir le service waaye man li ma mënul comprendre réseau interconnecté bi muy Cap de nekkul aan foofu la ñuy séddale euh, aan mu affecté l'ensemble du territoire national. su man dama doon woote. Ziguinchor dafa coupé. Tivaouane dafa coupé. Saloum. Saloum dafa coupé. Mbour euh, sax. admettons dafa coupé. Mm. Kédougou dafa coupé. Oh. léegi ban incidence la coupure boobu di am. Mm. surveillance ou opération minière yi dans une zone comme Tivaouane mhm. et nga xam ni c'est des zones minières mhm. euh, est-ce que incident la walla accident la mhm. walla lu ñu provoqué la de toute façon lu mel nii dafa laaj enquête mm. parce que une coupure aussi vaste euh, Euh, coupure d'électricité bi fi xewoon ba impacté woon lu bari nag ci doxinu réew mi am na ay explication yu mu ci joxe nag ci euh, am la xewe mais quand même romb na ndakaar nag ba jël dugg ci yeneen gox yi goxaat yi comme ni ko waxee Anta moom dafa dafa posé wu ay questions en parce que boo xoolee sax si mu si raisonnement am tu te sens que ni dafa am ay doute que ni est-ce mm, lu ñu lu ñu lu ñu bëggoon saboté mm-hmm. ndax euh, mu ngi évoqué dëkk yi nga xamante ni wala sax dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo amoon coupure bi en tout cas bon dès sànq xëy na duutul euh, baaraamu tuuma euh, tudd nit wala joxoñ nit wala joxoñ ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor li nga xamante ni moom mooy moom mooy centrale solaire bi te mi ngi wax naan bay tudd ay cap screening ak yooyu en tout man si commune si li nga xamante ni wax naa ko mais xam nga Clédor dafa nekk nit bu nga xamante ni affaire de mine xëy na maîtriser na ko et d'ailleurs parfois raisonnement am forcément da koy yóbbu foofu jàpp nii voilà mine bi fa la lay am donc lan lay impacté ci courant bi lan moo tax lan moo tax mais lu si mënti mën si am jàpp naa ni comme euh, coupure bu jëloon temps la coupure bu xawoon gudd la pour man ne serait-ce que ministre bi wàllu wàllu li nga xamante ni moom mooy loolu wàllu courant ak yooyu war na def benn communiqué après en fait pas moment bi nga xamante ni moom moom moom la coupure bu am mais après au moins ñu ñu wax ñu réellement lan la woon waaw lan la woon et puis ñu xam dans l'avenir ndax dina amaat wala du amaat mm. si Sénégalais yi comprendre dëgg-dëgg en fait bu fekkee sabotage la ni xam bu dee du sabotage aussi euh, nit yi xam mm. muy noonu monsieur Euh, dafa impacté Dakar romb Dakar <clears throat> dem ba ci yeneen goxee goxaa di moom nag dafay wax waxi sabotage bare na ñuy évoqué boobu baat nag est-ce que jàpp nga loolu. <laughs> d'ailleurs man en fait je <coughs> j'ai même par rapport à sa réaction parce que coupure bi ñun ñëpp ko dundaan. parce que que ce soit euh, vous qui avez votre télé euh, le mécanicien ou bien le tailleur et autres nous tous nous avons subi cela. maintenant revenir à dire que c'est du sabotage pour moi en fait c'est mal dit parce que loolu war koon wax parce que c'est un incident comme tout autre parce que bërëb liggéeykaay boo gis day am des fois des soucis mais de là à vouloir tirer une conclusion à la hâte naan oui c'est c'est du sabotage certainement ils l'ont mis euh, sous le dos de ceux-là en, en griffe qui qui supporteraient l'opposition et moi je dirais non donc c'est un incident nous déplorons cet incident Non, non, non, mais oui, c'est lui, il est, il tout, il n'est connaisseur rien du tout, déjà. Donc, euh, un type qui se permet tout le temps de, de, parler de tout et de rien et qui ne maîtrise rien. Tout à l'heure, j'ai entendu Ouzin dire que oui, euh, il s'y connaît trop en pétrole et tout. Donc, ñoom ñoo fi doon taxaw naan gars yi ngi manque pétrole bi du ko jàll ci ay pipeline di ko yóbbu et tout. Donc, moom avec ses souteneurs ñoom ñoo yor tey nguur gi. Ils n'ont qu'à clarifier cela. Donc, moom waxam moom ma ko déglu parce qu'en fait, euh, ses propos ne sont Donc, Diarol Mati attardé autour. Moi, je me dis que juste c'est un incident qui a été réglé. Et derrière, en interne, ils vont essayer de voir ces manquements et apporter des solutions pour qu'à l'avenir, que ces genres de trucs ne puissent se reproduire. Lola am li ma wax. mu nekkoon Clédor Sène doon indi ay leeral ci euh, li nga xam ne moo jëm ci euh, centrale électrique bi amoon jafe-jafe fi nga xam moom moo di ci ànd ba impacté woon ñun ñëpp pratiquement ñun ñi euh, yëgoon nañ ko lool parce que toute une amuñu woon liggéey bu ñu def donc pratiquement yàq na lu bari ci li ñu doon def ñun donc yoon la nag comme ni Ouzin wax jëwriñ ji ñu dénk mbirum énergie génn daal di ci indi ay leeral joxe ay explication yi gën a clair euh, quel que soit bu dee sabotage la itam comme ni ñu koy waxee ñu xool nuñ koy leerale askan bi dañuy jàll ci beneen vidéo rapidement euh, parce que comme li ma wax rek am na yu bari yu ñu war a waxtaan ak euh, monsieur Salam Djiba mais laata loolu ñu écoulé euh, quelque ci ay vidéo yi ñu jot a am fii ñu dem teewlu li nga xam ne moom mooy mars bi gars yi doon amal su ma jumul dem ca Masalikul Jinaan donc foofu nag am na ay kàddu yu fa jot génn ñu dem loolu ñëwaat. téere bi damay waxtaan Sëñ Tuubaa ci safar gi ci boo maraîcher nit riir daanu jox ma ko àddiya kon lew na ma. maa waxtaan ci sëñ Tuubaa ba am ko boobu ba tey génnut dama ko teg fenn di ko parfum ki tax ma génne ko mooy ku ma sosol te nag alxuraan day atte Baara Ndiaye moo wax ne dama ko woo doon ko wax ci kenn ma bëgg téere bi atte ma su fekkee pàkk bii rek nit waru fee wax. waaw mais en kay en kay may ma may ma may leen ma nawloo wu ma ko dinaa ko nawloo sax xaaral dinaa ko nawloo xam nga lu tax. xam nga waaw xam nga lu tax dinaa ko nawloo nee na taalibi sëñ Tuubaa la te man bu nee na nee na nee taalibi sëñ Tuubaa la te doomu aadama la te sénégalais la te duma ko wax lu ñaaw bu fekkee li mu wax am na yàlla na ma téere bi alak bu fekkee mës naa koo woo. nee na yaa ceddo murit benn yoon laa mës a wax ak moom téléphone ma ceddo benn yoon laa mës waa déglu ma ceddo benn yoon laa mës a wax ak moom téléphone benn yoon laa mës a ak ceddo téléphone waxtaan ci télé bi ba génn mun a ma soxna su tudd Borso maay laaj sa numéro ba am ko ceddo ne ma da lay jox addiya Sëñ Tuubaa ceddo dañuy daje mu bëgg ma mu bëgg ko ngir Sëñ Tuubaa mais mosuñoo bokk jotaay loolu am na sëñ Xaadim Buso daf may dimbali daf may dimbali ngir sëñ Tuubaa waaye dama ne bu fekkee mës naa koo wax ko mbirum Omar Diagne Baara Ndiaye téereb sunu borom bii yàllaa ko bind te du caaxaan yàlla na ma alak. nii nga est-ce que combat bi mujjul nekk combat personnel parce que dañ doon xeex pour li Cheikh Omar wax euh, yoonu murit mu dem ba mujj nekk entre Cheikh Baara Ndiaye ak euh, ñenn ci ñi doon xeex loolu. Mhm. ah génn si en fait parce que règlement de compte génn si parce que euh, doo xam sax finalement kan moo tooñ parce que Cheikh Bara ñu fàttali moom moo def benn vidéo daal di wax Ceddo euh, euh, c'est pas Ceddo Ceddo la ñu koy wax benn. benn waay Ceddo Mouride Sadi waaw voilà dafay faral di waxtaan ci yoon yoon gi. ak Mame Mor ni tuumaaloon ak Serigne Khadim Boussa ba ni ñoom Serigne Khadim Boussa Euh, Ceddo moo ko woowoon téléphone jaarale ko ci Maam Mor ñu woo ko après ñu dem ci Sëñ Xaadim Bousso bi ñu demee kër ga mu koy proposé mooy coow lu mu fi njëkkoon am ak euh, Cheikh Omar Diagne ñu koy proposé xaalis euh, maanaam di ko wax ni ko lii mën nañ ci dil ci coow li nga am problème bi nga am ak Cheikh Omar Diagne mën nañ ci mën nañ ci dil donc loolu la waxoon attaqué leen jàpp leen lii c'est c'est c'est personnel c'est personnel ndax ñooñu ay xaritu Marème fay Sall lañ ba tudd sax Sëñ Xaadim Bousso ni xaritu Amadou Bala Amadou amadu Sall voilà léegi nag réponse nii moom moo nekkoon mu indi kaamil bi di di ko di ko répondre ba ñenn ñi sax mu naan ko euh, mu naan ko du ñu nawlee mag yooyu mais li ci mënte li ñu ci mën a wax mooy en bu dee lu personnel war ko nekk d'abord parce que su suñu suñu duggee ci règlement de compte dafay dafay daf li nga xamante moom mooy bii bi bii bi mooy ki dafa wax ci euh, sëñ bi loo xamante ni ñi nga xamante ni ay ay taalibe ak euh, jullit yi ñu su bari merci bay demandé sax ñu dàq ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Omar Diagne bon jàpp naa ni état tamit nekkul nekkul noonu la koy réglé peut-être nit ñi dañuy mer rek euh, Bassirou Diomaye fay ñëw war a ñëw dàq Cheikh Omar Diagne même bu fekkee li mu wax nit ñu bari ànd mi si aussi de nature de nature il est comme ça en fait maanaam moom noonu la mel et ça date pas d'aujourd'hui muy wax ci yoonu euh, yoonu murit loo xamante ni nit ñi rafetlu wuñ ko